asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku Afrique maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant te nuyoo boobule boole naa ci sunu mbokk Sénégal yi nga xam ni dañu nekk ci réewu étranger yi te war bokk ci élection yi dama nekkul woon Sénégal depuis ñaari at ci jamono yi nag ma jot ay bataaxal yu jógee ci ay góor ay jigéen ay responsable ay militants ay députés ay anciens ministres ñoom ñëpp ñu ne ma réew maa ngi tas ñëwal nga dimbale ñu parce que Macky dafa bëgg a def élection yoo xam ni duñu ko nangu te bu ñu sàgganee dina jur lu metti ma di leen fàttali li xewoon Côte d'Ivoire ci élection rek ñetti junni nit ñoo fa faatu boo demee buru ni ñaari junni ñoo fa faatu nga dem Guinée téeméer ak juróom fukk nga dem Togo ñu ne juróomi téeméer xalaat li xew Afrique mën loo xew Sénégal vraiment moo di ñàkk xel ndax sénégalais ak africain yi benn la ñu

Macky Sall dafa juum ay pour def marche wala réunion la erreur bu parce que ci jamono Senghor ak Abdou Diouf boo bëggee def réunion da may permis ba ma liberté permis

kuréel goo xam ni moo di mbootaayu parti américain démocrate ñu encadré ñu ba ñu am code électoral boo xam ni opposition ak pouvoir bi ñoo ci d'accord code boobu moo fal moo ma fal man te Abdou Diouf kon moo ko defar bu defoon ni Macky Sall mi man du ma falu man tam ba ma xamé ni code bobu ñew na ci sama loxo ma def ay élections yoo xam Macky Sall ci la gagné nekk président de la République kon nag code bobu baxna man mën ko changer peut-être bu fekkee am nañ ci wala a soppi waaye rek nga ñew rek bëgg a soxaloo yëpp bëgg indi sa code bobu loolu nak moo li nga xamni bu ko bëggee def du sorti démocratie comme nga que en Sénégal nous pas ne PDS loxo qui ngi Nous avons dañu daan waxtaan ak Senghor def ay avons waxtaan Abdou Diouf code électoral mais Sénégal mais l'élection yi li c'est une élection verrouillée maanaam loo xamné ne da nga koo def sa coffre fort ba paré tëj ko Lolu la Macky Sall def bëgg nag ñun ñu and ak mom ci lolu. lépp lo xamné ne na ni li man na koo gàllankoor mu dóor Ñi la éliminer Karim éliminer Khalifa Sall simplement parce que xam na ni ñooñu bu fekkente ni dem na dem na ak ñoom ci élection yu normale

rek ngeen continuer pré présider yooyu ba sama élection Paris ngeen soog a dem alors système Macky Sall daal dafa changer lépp te lu muy changer du consulter kenn dañuy xëy xëy rek gis benn loi mu ne def na di bay changer ci juróom benn weer yi nga xam ni mooy jiitu jour bi ñuy wote CEDAO devenait quel monnaie qui changeait le code électoral Macky moom day xëy rek changer sans nous, ci ak ñun sans waxtaan ci même avec la Sénat Mais comme moi, contrôler l'élection alors Macky Sall donc réformer magistrature def ay magistrats il connaît, mais ba parrainage il ngeen parrainage parrainage bonul France a na parrainage mais Jérôme téeméer a une signature des élus ñi ñu fol suis député sénateur wala conseiller municipal boo ci Jérôme juróomi je ñu reçoit mais Jérôme Sall du juróomi téeméer juróom benn fukki junni ngay une liste de parrain li mu def amul fenn ci àddina xam naa ni ñu mën a wedd lañu waaye nañu wax Macky ci système am parrainage far la am ci àdduna man de xaw ma ko xaw ma ko dégguma ko mu ne moom mooy dëkk tànn parrainage boo koy tànn booy tànn say parrain ci ci liste électorale ba nga koy tànne waaye moom mu ñu ne gars ni moo jëkk egg si ñëpp na mu mën a def ba mën a jiitu ñu bureau ñëpp nañu ko truqué ñu ko yaay dëkk tànn mu tànn ba nga xam ni candidat bi mujj moom war na choisir ay parrain ci code électoral bi ñu dindi ci ñi nga xam ni ñooy parrain wu ñaar fukki leader ñaar fukki parti ak juróom benn kenn mësula gis li fenn ci àddina alors dañu gis li donc ni élection bi bu fekkee noonu la war a demee dañu ci opposé ba mu bañ a am ñaar mën a am Macky Sall dindi affaire caaxaanam yow de organiser des élections libres et démocratiques ku bëgg a nekk candidat nga nekk candidat ñu dem wote ku gagné ñu xam ne yaa gagné waaye bëgg a truqué ay code électoral yooyu de ba pare ni ñëw leen wote duñu ko def moom dafa sélectionné juróom

bu vous ni Macky bëgg nañu def élection normale Nous mettre en place une commission nationale démocratique commission vous préparer élection union. ñëw li nga xam ne daf koy code électoral bi consulter opposition bi pour mu dindi ko carte yi nga xam ni le ak genn le carte ministre de l'intérieur parce que ay jeunes lañu bëgguñu jeunes yi voté loolu yëpp bu fekkente ne nangu na ñu jox jeunes yi seen carte dindi ci code électoral bi li mu ci yokk te war ko ci waroon yokk ah ñu de mën nañoo toog waxtaan ak moom soo bëggee it mën indi benn réew wala benn ONG comme ni ko Abdou Diouf defe woon mu ànd ak ñun ñu discuter

ben bi moo di le vingt jours élection yi bi ci des moo di après élection yi parce que xamone lu xew waye ak lu meuna xew ñun paré nañu suñu programme nak lañu koy meuna déko li nga xam nak non noonu la ñuy def pour mu baña am élection ñun day recommander noonu suñu militants ak population bi yépp bu ñu am violence bu ñu toj bu ñu dóor bu ñu yàq

sëriñ boo xam ne daf ko ni yow dama rek da ngay na dem mi kenn mënul a gañe ci élection yi Macky Sall ku ko wax amuloo xel voilà daal li ma leen bëggoon a wax mbokk yi eh, maa ngi ñëw nag yéen ñëpp xam naa ne <laughs> bind ngeen ma yéen a ngi wax maa ngi leen di déglu maa ngi ñëw waaye bii daal moom mooy sama programme fexe ba Macky Sall dem ñun jàmm ñu bëgg ne def li ñu ko wax def élection normale su ko defee ku nekk man ngaa demal sa bopp wala nga ànd ak ñeneen am benn candidat ku gagné ñun d'accord nañ ci li daal bokk Sénégal moo di li ma leen bëggoon a wax man nag euh, yàlla mënoon na def sax ma bañ a nekk ci politique ma nekk ci yeneen